Jamalahi Evans Evans Evans Evans defe naa seen kër jot na ba pare ci ay kàddu yu tënku rekk mu tëj débat bi ci li nga xam ne moom laa doon wax sànq ne moo ëpp importance li mu doon wax boobu ba léegi ñu tuddee ko tawxiidul uluxiya mooy li nga xam ne moo waraloon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam amoon nag xeex seen diggante ñoom ak seeni ñoñ lañ leen yónni muy kennal yàlla si sang jaamu génn li ñu naan taaxuut ci lépp looy jaamu ndax nag safaanab tawxiid képp ka nga xamante ne ni tabbi nga sa sama borom bakat mu ngi lay xaare ay mbugal ka feewu ka sama borom ba mooy wax mu ne inna allaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد دل دلالا بعيدا سما بورم موي واخ موني سما بورم دو بالي نيكاي بوكالي لودول بكار بوكالي موني من نا بالي مبولم بكاري موني نا كيب كاغا خامني بوكالي nga sama borom موني نا بيرتا nga ak بيرتا nga بير موي واخ باتاي موني انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومغواه النار وما للظالم من انصار مو وخار باتاي مو سما كيف مي كيف كا خامتيني ياغي ماي بوكال ما سما بروم مونا ارامنا الجنه سي ياو مول سا دكواي مونا سفر لاي دون بريغول مو غاي واخ باتاي رواتينا نك دما كا فاتي سانخ ñun sénégal ñun ñi di woté wo ay julit waaw bés yu si mel ni bésu tey bi ak vingt cinq décembre ñuy koy askan am ñu koy askanale ku si nekk nag taxaw naan lëkkum diine kum wala diin ñun nag sàmm suñu diine moo tax ñuy wax si lii yàlla moo wàcc saar wa xul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad jurul kenn kenn juree fukka kon képp ka nga xam ne yaa ngi joxe fu kenn xamul di lu andil naan yàlla am na doom dan la koy sànni bu kaalik sama borom kafeewu ka bàyyi maam njin andi na aaye alxuraan yi ko andi yëpp yàlla na yàlla fay ka ker ba nga xam ne jagleel nanu baat boobu Seydina Limaamu alayhi salaatu ba mu demee gore ba labbay si moom ndax sama borom ba mu def si moom ñu yéemu si moom daal di wax ne kii doomi yàlla la subhanallahi alazim ñu nga naan kii doomi yàlla la bu leen ka tooñ bay maam jiin wax ne saa nu waxee ba bi nañ ci teg subhanallah ndax sama borom ba sellate weesu na lool bokk na si certi tawxiidu asma wa sifaat moom sama borom ba melo yi nga xam ne yu matadi la yow nga jombal ka ko sama borom sama borom lu muy bindee ay nit ba pare di sakko am lu muy sakku ci ñoom déedéet yàlla amul doom masula am doom jurul kenn kenn juru ko képp nag ku kay wax fépp fu ñu taxaw dina ko dindi ba mu set amul ay seen diine la suñu diine déedéet ñun suñu diine li mu wax loolu la ñu wax ay jullit nga leen di dégg ñu naan ay Jésus le fils de Dieu subhanallah ay pat ay ngalla tax ngay wax loolu ay jullit di fooye yooyu lay baat te dégg sama borom lim si wax sama borom ba nee ne asamaan xaroon na wutte leen yéen waa suuf suuf xar nar nar leen nar leen dëreex lan moo tax mu ne la fait que ñu naan yàlla am na doom kon loolu ndawul sama borom ba ñu jël loolu nag kàddoogu ñun jullit ñi tey ñoo koy fooye mooy wax moom sama borom su sooratul maayida mu ne ñi nga xam ne ñu ngi naan isam nu Maryam moom mooy yàlla mu ne ñooñu kat ay fenkat lan ay fenkat la leen tuddee moom sama borom waaw ñun tey ñun ñu leen di défendre di leen défendre balaa may dee ñu naan ñoo gën a yaru jullit ñi déedéet man ki gën a réew si kaw suuf ki ma jàpp ne moo gën a réew mooy ki nga xam ne sama borom ba nee na jomba naa sàngam mu ne ko yàlla jomboo ko yaa gën a réew ñëpp man nag jullit bi du ma sàggan ñu naan yaa ma gën a yaru déedéet yàlla mooy wax ba tey mu ne xul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya lillahi rabbil alamin laa sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslim yàlla nga naan kan neel inna salaati ne sama julli samay jaamu sama rendi sama dunda lillahi rabbil alamin sama borom ba moo ko moom keneen moomu ka mu ne wa bi zalika umirtu mu ne niki loolu kat lañu la digal mu ne nag waa naa awwalal muslim man may njëkk a sàmm ci loolu maa njëkk a ngoy ci gum gi ma njëkk a ammatu mu wax ba pareegul mu ngay wax ba tey نعم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه لمزتك من فيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا جاي الله نينك وخل نتني نل نت لا كوم ين وايي نك واخ لين نل من مالا سانتا واخ لين نل سين بوروم كات كين نالا innama ilahukum ilahun wahidun mu ne nag képp ka nga xamante ni yaa ngi yaakaara daje ak sa mu ne na sellal ta jaamu ta bul sa ak bokkaale li tax nag ma wax mooy sirk di bokkaale yàlla ñaar la bi si jiitu mooy bokkaale gu mag gi mooy ngay jaamu yàlla wala boog ngay jaamu leneen lu yàlla mo xam garab la wala ay montagne la wala xambay la wala ab yonent la wala ab serigne la wala lu momanti doon ndax am na ñi wallahi jaamu ñu yàlla bañ nañ ka sax ba neen serigne diw mo leen mom ñun de la ni wax yow yàlla de yaanu mom yaay sunu borom kuy wax leneen nak waxal leneen fi ci adina waye nak buñu la takke ba nga ne ngodda sangala sangala gas ba mu xool dugal la si munkar ak nakir gane sene de sa borom neel diw mooma moom bu dee dëgg la rek buñ demee foofu nañ ne diw moonu moom man de kenn moomu ma Seydina Limaamu alayhi salaam yónneen tub yàlla la bu yàlla yónni ma gëm ko lool waaye moomu ma ndax bindu ma sama borom mooma bind moom ma keneen moomu ma kay beneen bokkaale bi muy lañu ñu yonent alayhi salaam doon ragal te jamono ji mu fees fi del te ëllëg li mu lay jural ay loraange la mooy bokkaale gu ndaw gi ñu laaj yonent wala mu wax ne inna ahwafa ma axaafu aleykum asirkul asxar qaalu ya rasulullahi wa ma sirkul asxar qaala arriya yéen nag mooy wax mu ne li ma ragalal moy bokale gu ndaw gi ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi lan moy bokale gu ndaw gi mu ne mooy ngistal lu ma sa tek mu ne yaxulu llahu azza wa jalla lahum yawma alqiyamati ida juziya annaasu bi amalihim isxabu ila alladina kuntum turaawna fi dunia fanzuru hal tajiduna indahum jazaan yàlla ngay laaj mooy ne bés ba si laa war a atte nit ñi war a fay ku nekk jafam mu ne yéen yi doon jëf-jëfi ngis tal mu ne bu ngeen ñëwee dinaa leen wax dellu leen sene taxoon ngeen di def ñu fay leen ba xam da ñoo am nañ ak pay dara jaru bu ko ëpp sëriñ jar ndax looloo fees léegi suñuy géew day rëy lépp loolu moo fees doo def dara doo jaamu yàlla doo def dara sëriñ bi ñëw rek mu mel ni nag yow yaay jiiti nit ñi bu julli jotee nga taxaw sa kanam jàng alxuraan nga ñëw toog bu dul loolu nag kenn du la gis kenn du la dégg ji yàlla ngay jaamu wala sëriñ ba ngay jaamu kan ngay jaamu koo manti jaamu nag maa ngi lay leeral ne la kooku amul ak fay ndax sama borom ba pare na déedéet mu nga naan wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu xabaan mansura muy ñi nga xam dañuy jëf-jëfi ngistal yenen alayhi salam waxon demba mune amna ci ñun ñi ñun julit ñi ña nga xam ne kat si kanamu nit ñi day dañuy jaamu yàlla di taxawal ay julle kanafila mune nak bisub taxaway ba dañuy ñëw ëndalé ay yiw yu tol comme ay montagne xana koku la ngay séntu suma moy mooy ne texe na yenneen ne déedéet aaya bii moom la yàlla di waxal yàlla dal dal di ëf lépp def ko poussière dootuñ amati benn yiw ñu ne ko yow bi yàlla bi lan moo tax loolu mu ne ñii ñoo doon def ngir ngistal yennant di wax saaba ñëw laaj ka yow yennantu yàlla ani nan lay def ba a mucc si mbugalum sama mu ne boo si bëggee mu ne ko nax yàlla waaw mu ne ko yow yennantu nan la ñuy naxee yàlla mu nekk mooy ngay def jëf ji mu la sant moom yàlla te ba nga def séentuwoo ko sa moom sama boroom mu ne kooku ëllëg day ñëw yow mal xiyaamati sama boroom ba woowee ko ñeenti tur ne ko yow workat bi yow ku torox ki yow ngiskal ngistalkat bi yow aji perte ji nga war a dem nag say Ibulaay ma korang nga doon def mu war laa fay te moom mu nga am ay problème yu ko di sëg fan la lay jàllee walaay ah ngistal baaxul bëri nañu koy def rawatina politiciens yi bëri na barki alxuraan ku ciy dem ba sama borom fa fekk dara parce que la ngay joxe lan say séntu sa sama classe gi nga xam ne nag ñoom dañuy ñëw rek nga jërëjëf yéen ñu jëf luñ la defal lan say séntu mooy ñu ni gërëm la ngar ñu say carte ay waaye doo sa am dara nga rëmal nit ñi rek ngay am doo am dara yónnent mooy wax mu ne kaay ma misaalal leen ngis talkat bi ne mu mel ñu ne yenn yoo yónnentub yàlla bi xibaar ñu mu ne ngis talkat bi mu ngi mel ni ki dem marché jël ab saagam yeb ka ay xeer ba mu fees dell day jëndi mu ne bu rombee nit ñakat ibulaay nga naan non sa waay tey cap na ñëpp di ko apprécier naan kii day yor na me? ne nag waaye boo juumee ba dem ba yegg sa jaaykat ba génn xeere ya naan kan jaay moo boobaa boo matu mu jël xeer ya xarab la ka mu ne ngi noonu nekk leen fii rek di def ngistal nit ñi di leen apprécier waaye bu ngeen yegg ba man yàlla sama kanam ngeen xam ne lépp la gay yéen neen alayhi salaam nee bés penc groupe ba nga sama borom ba da leen di woo neleen leen ñu daal di ñëw ba moom sama borom ba ñu daal di leen indi ba si bunta aljana ya xetu aljana di leen xeeñ ba ñuy yaakaar ne fa la ñuy dugg sama borom ba woo malaaka yi ne leen kaay ñu ñëw mu ne leen jëlal leen ma ñi ngeen dugalal leen ma safara waaw yow sunu borom bi nga xamee ne safara nga ñuy dugal lan moo tax nga andi ñu fii ba ñu santi xet gi ba xam ni mu mel ba pare mu ne waa li ngeen doon jëf moo tax ndax da ngeen doon jëf ngestal mën te ma mepp leen indi leen ba fii wan leen ba pare te doo leen sa tàbbi nag safara ngeen jëm gaa yi bokk ki bokkaale gii nga xam ne mooy ariya nanu ko moytu surtout si jamono ji yàlla dafa fiir ndax fàtte naa ko sànq ndax bokk na si yàlla ay melo ak tayib yàlla ku teey la lu tey rek kay yegg si moom yéene ba li tax ñu naan lan farata ci lépp parce que yàlla na jooju lay xool nee na la maa it na yow booy julli ibulaay ne faax dugg ci néeg bi rek nga gën a neexal julli nga gën a julli mu ne man yàlla pare naa su julli gi bëggatuma joxal ibulaay na la ibulaay fay ndax man taxatuma kon yàlla lépp loo koy jox lu sincère lay nekk mu man laa fay waaye nag tey xool leen ñun suñuy jaamu ne ma koy waxee dama yor sax course may jaamu yàlla daal di foto sama bopp pour woon nit ñi ne maa ngi yor course jaamu yàlla yor ab kaamil di jàng man sama demande nit ñi fan la ñu ne ndax yàlla ku buur bu toll ni yàlla kooku boo koy jaamu sam xel war naa nekk si leneen lu dul ngay wan nit ñi la ngay def sam xel moo nga war a nekk sa moom doo fa jóg lan moo tax sanga bi sallallahu alayhi wa sallam digal nu nuy sikkar laata ñu tàbbi si julli ngir sunum xel génn ci lépp yow nga ne nag yaa ngi jaamu yàlla si seen tuwaal nit ñi gisaale la waxkat yi ñu si bëri tey seeni yéene setul sëñ Mansour mu ngi koy wax keroog mu ngee waxtaanam magam Cheikh Mbacké Cheikh Mbacké di ka laaj ñaata waxtaan kan moo am mën a ka ñett yi ñoo am maa Ibrahima mi nga xam ne bu muy génn këram lenn rek ko ko yitteel mooy fexe ba jigéen ñi nga xam ne seeni posé dañ ciy def xaalis ñu jox ko ko ñaareel bi mooy man maa Ibrahima mi jóge suñu kër lenn rek moom ma yitteel wan mbooloo mi ne leen man day am naa xam-xam damaa jàng am keneen ka nga xam ne nag moom li ko yitteel mooy rek nag wax rek te yàlla tax nit ñu jub premier bi nag ku ci nekk li may wax nii doo ko wax ndax yàlla nag ñaari boo seetloo à chaque fois du la ko jox lenn mooy mën a am nga nekk si jàng yi du xumbal di xumbal nit ñi jóg di la sarax waaye duñ la déglu leneen li nag mooy sama borom ba dalay doon te ñëpp ñu toog ñoom ñëpp di la déglu waaye sarax du jóg waaye ñun boobu ñu gënal ndax defar ko foofu lay nekk sama borom la ñu yaakaar ak fayam sikkarkat yi bañ naka ba tey Seydina Limaamu Laay sallallahu alayhi wa bu ñuy wax si tawxiid moo sa jiit waa këram tawxiid la leen jox la ilaaha illallaah la nu bàyyi ay jox ñaata ñaata heure lan fii sikkar yoo xam doo si dégg sa laa ilaaha illallaah lan moo tax ngir rek xumbal tan tamit nit ñi ne neex na sama classe gi xam ne léegi ñoo yor micro yi di si wut ay jigéen ñu leen fan jëm ak moom fan fan la ñu ak moom gars kuy fo demal nga foofu jee si leneen lu dul diine sama borom sama diiney borom laa wax képp kuy fo bàyyi ka bi nga dem foofu ji feneen lii du pour fo la nga xam ne mag ñi dañoo tuur deret ñi seeni bakken des fa lu ne ñu daj ka ngir samp ka yow tey nga ñëw di ko jëndee ay weccet waru la mën a ne déedéet gaa yi nanu sellal suñu yéene lépp lu nuy def ci diine sama borom bi mu nekk tawxiid kase séentu kase moom yàlla kase moo am ak fay de kenn amul fay ci gën ci mboolem li yàlla bind saa yi bu koor passé ba trois jours de am ñu ne nañu dajool lu ñu def ñu ne dañ koy ñaanal ko du yeewu ki gën ci mboolem jullit gën ci mboolem lu yàlla bind sax ñu ne dañu koy ñaanal waa léegi yow mi am say soxla naan dangay dem ñaan ko moom ndax dina nga am déedéet sëy naa limaam du faj aaja yi dañuy dem ñaan ci barkeem yàlla man a faj suñuy aaja waaye tey riir nañu ñu yaakaar ne mbir mi mu ngi si bindaa fi ni sama borom ya déedéet sëy naa limaam bi mu ñëwee dafa sampa tawxiid jàngal ka ay saabaam ñu joxaat ñu ka sëy naa limaamu laay sallallahu alayhi wa bu fekkoon dafa sampa boppam wan boppam ñu jaamu ko moom bàyyi yàlla ndax mi ko yàlla bindee moo yéeme kanaan géej randatal mu randal këlay ëf na daal di néew kooku bu nu wanoon boppam ñu topp ko bàyyi fi yàlla waaye mu nga effacé ko waxuma moom waaye xoolal saabaam ya mu yar bay ma tarlu xool ko ca tawkiid ja saa ye bu lay nettali mu dira sinaali maam danaan laan bi isnillah saa bu lay nettali danaan laan def na kéemtaan diw si kattanu sama borom du rey ga du moom dekkal ga du moom ak ëf ñun ñëpp a ko am mais lan moo nekk si ginnaaw ëf ga ñun ñëpp mën a wax géej randul waaye lan moo nekk si ginnaaw ba géej mën ko dégg sama boroom a fa ne taxaw fa taxaw leen lépp nuy def mu gunge leen moom sama boroom du kenn na si ñoom yàlla li mu namba ba def ko si yonent barki alxuraan bu ko soobam mu def bu ko si man mii ma nekk moom marke moom la yàlla du du nit ko waaye moom la maanaam ab joxañam la moom sama borom mu tax bu kenn rëy ak rëy sama borom moo ko yelloo na nu jël mbir yi nag delloo ko moom borom bi moo ko moom de mboolem ku ngeen ko mënti jox i tamit war ngeen sama borom te nag bu ñu dajee ak moom dina métti ngeen jéggal ma nag ci kàddu yi xam naa gudd na allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam